asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki yi ci waxul ja alxaq wa saqa albaatilu in albaatila kaana zahuqa ñi ngi leen di nuyu di leen fàttali rek ne leen maanaam xew-xew yi am ci daara yi ak itam jéje yi nga xamee ne moo ci faral di am suñu fàttalikoo ci diwaanu Louga ca jamono yële nga xamee ne moom la génn ci weeru novembre wële ak la xewoon ca Njaañ ca jàngalekat alxuraan boobu la suñu mbokk mbokk mu di Cheikhouna Guèye ñu ko daan wax xaadim ci weeru novembre wi nu génn ba lool ca xewoon lépp ñun ñëpp ñu xam ko ba yàlla xëpp ci ndox mu sedd ba loola moom sotti na ay bis matagul mat weer am beneen bu amaat fële ca rawdu nekk ca commune bu Thièl nga xam ne ma nga ca département bu Linguère ak Fatou beneen donga boo xam ne bii moom lañu ñu duppee woon Fallou Diop tolloon ci fukki yàlla ak benn nga xam ne dañ koo mujjoon moom itam dóor ci daara ji ba mu faatu euh, nga xam ne daal euh, ki ko Maguette Diop moom nga xam ne moo ko magoon tuuti ak rek toll ci fukki yàlla ak juróom lañ ko joxoon moo ko doon jàngal moo ko woon daar ba mu dóor ko mu faatu démb nag dafa amaat beneen bu amaat mu di beneen taalibe boo xam ne bii mi ngi toll ci fukki at yàlla ak ñett ñu gën ko xam ci Abdoulaye Camara eh, ñu koy wax kamu ndeysaan moo di coow lu méttee métti ci Louga eh, moom mu ngi toll ci fukki yàlla ak ñett eh, wax nañu ne daal moom itam ki ko doon jàngal alxuraan daf ko dóor daal ba mu daal di mujj faatu ci ni nga xamee ne noonu la ñu jotee xabaar yi ndax wax nañu ne daanaka doy na waar lool ci mbir yi ni mu tëddee. ci hôpital Amadou Sakhir mbay bu Louga lañu ko yóbbu woon bàyyi woon ko fa gannaaw bi nag la mujj ñàkk bakkan mu mel na nag mu mel na nag mbir yi dafa dafa am lu ci am ndax daara ji nga xamee ne ca la amee euh, mu di daara soxna Mbayang euh, Cissé mi nga xamee ne weer yële rek la faatu doon jàng soxna soo xam ne si dugaloon nañ ko sax ci groupe bi ca Louga muy jàngalekatu alxuraan bu bu mag man mii sama doom bu jigéen fa la jànge ba tari alxuraan man mii Eh, Mbayang moom nag dafa dafa làqu dafa faatu eh, ca daara jooju nag ca cox na ca la yëf yi amee ca Louga eh, waaye nag ki nga xam ne daal wax nañu ne moo ko doon jàngal ba dóor ko moom police déglu na ko daal di koy bàyyi ñu continuer nag enquête bi waaye nag ñi nga xam ne ñoo jur xale bi daal ñoom nee ñu fokk ñu def autopsie gën a leeral mbir yi ba néew bi daal daañu ko indi fii ci hôpital La Dantec xale boobu nag nga xam ne moom moo di kamara euh, euh, Camara moomule wax nañu ne lu jiitu muy faatu ci lal hôpitalam dafa wax maamam bu jigéen du ko yore woon ne ko diw moo ma dóor waaw diw moo ma dóor ba sama yaram bu mel nii lu jiitu muy faatu nag wax na ko tamit yaayam nijaayam nag daal na kon gannaaw loolu am na ci fokk yëf yi ñu yóbbu ko ci yoon ne ñu daal procureur sax tàmbali na dugg ci mbir yooyu le mu nekkaat geneen jéyee yoo xam ne ji amaat na ci daara yi ñu ngi koy toppandi kon ca Linguère am na ko ñu fa faatoon gannaaw ba nga xamee ne amoon na boo xam ne bii moo nekkoon ca Njaañ mbir nag dafay gën di yolu di gën di di di di dem Louga nag euh, moom la ñuy waxtaanee fii nu toll ni ci daara yi soxna Mbaye Cissé moom nga xam ne rahmatullahi alayhi alayha nga xam ne euh, dafa faatu ca weer yële nga xam ne moom la ñu génn ci daara jooju la amee. mu nekk nag loo xam ne lii eh, ñi ngi tàmbali eh, ci ñin ci jot a jot ci droit de l'homme nag ñu ne mbir mi war nañ koo xoolaat nag eh, daal xool daal nu ñuy joyantiyaate mbir yi ba daal lépp jaar ci yoon ndax dóor geeg yu demee noonu le famille yi nag ñu ngi dox ci diggante bi ngir jàmm waaye daal dafa am ko ne moom fokk rek yëf yi ñu yóbbu ko ci yoon ndax kàddu yi xale bi mujjee wax lu jiitu muy wuy ji boroomam mooy ki ma doon jàngal alxuraan moom ma dóor tey jii ci suba sax ci xabaar yi rajo Sud FM ñëw nañ ci ci euh, Lamine Gueye Samane andil nañu information yi ci am yépp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaw ci ci daara yi soxna Mbaye boobu nag daara ju mag la joo xam ne ji eh, ay jàngalekat alxuraan yu xam alxuraan ñoo fay jàngale eh, mu nekk tamit so mu nekkoon soxna soo xam ne si soxna su baax la soxna Mbaye ku ku ku lewetoon la bariw bariwul woon ay wax sax. te gaawaree lool baax lool itam doon ku gëmoon lislaam itam rahmatullahi alayha baaxoon lool ci xale yi waaye dafa làqu ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax a baax moom soxna Mbayang Cissé moomule def naa sax bëggaloon nañ ko ci groupe bi yàlla xaare ko àjjana ah mbir mi daal mbir yi daal kon mu ngi noonu kenn ku nekk nag ak ni nga koy jàngate kenn ku nekk ak ni ngi koy gisee waaye daal eh, yàlla yàlla dimbali ñu daal ba ñu bañ a am benn gàkk-gàkk ci wala benn tilim tilim ci daare alxuraan yi wasalaamaaleykum